téléphone 77 394 73 73 agence Techno Habitat mooy ca Habitat offert. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ne ci ndigalal Cheikh Mouhamadul Muntaha ne mi nga xam ni ci la fi tooge ne yàlla def na Cheikh Mouhamadul Muntaha délégation ministre yaa ngi ñi nga àndal mu ngi leen di xaar ne bu ngeen jógee fii rek ne ngeen yegg ci sëriñ bi ndax Cheikh Mamadou Mountakha mooy borom liggéey bi te li ngeen def ci dëkk bi rek ne moom moo tax ngeen di ko def ne kon mu ngi yónnee nuyoo ab ministre Abdou Karim Sall di ko teg ci loxoom. ne yaa ngi ministre yi nga àndal yépp ne buñ ci tuddee Abdoulaye Sidi Sow tudd ci Victorine Ndeye mi ngeen àndal tudd ci gouverneur de la bii ngeen àndal góor gi mbay ak préfet bu Mbacké ak sous préfet bu Ndaam ne bi ngeen di ñëw nag di waaj yoon wi ne ci la ko Cheikh Abdoulaye doomam ji woo yëgal ko ni ko yéen a ngi ñëw ne kon moom it Cheikh Abdoulaye Lahat ni ngi koy nuyu bu baax ne moom dafay tawee ñaari tànk ne li jiitu nag mooy lii Cheikh Abdoulaye doon ci dëkk bi ak cër gi mu yor ci màggal gi ne seen cër bopp bi dolli ko waat ci ne mu di ci liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bi ci réew mi ne kon ñu ngi nuyu Abdou Karim bu baax a baax ne di la sant di gërëm bu baax ne ci seen taxawaay bii nga xam ne def ngeen ko ak ministre bi nga ko seqal di Abdoulaye Sidou saw ne yéen ko daa def naka jekk ne yéen a ko daa def naka jekk waaye gën ngeen ko yokk ne gën ngeen ko yaatal tamit bu baax kon ci turu sëriñ bi mi ngi leen di sant bu baax a baax ne ànd gi ngeen ànd ak ñoom liggéey bii di liggéey bii di liggéey sëriñ Touba ngeen xam la leen ci war la cay seen wàll ngeen def ko ne kon yàlla na sunu borom fay leen ci barkeb sëriñ Touba ne rafetlu nag seenu taxawaay ndax gis nañu sa yitte ak sa njàmbaar ak sa pastéef ci liggéey bi ngay def nee na ni daaw ñëwoon nga fi ci njëmbatu garab yi nga doon def muy xalaat yu am solo boo xam ne ñu ngi koy rafetlu ba léegi ne yal na yàlla defal leen ci ndam di yóbbanteem nuyoo nag ci seen kilifa président Macky sàll ne lu ngeen ci def rek ci ndigalam ak dàkk bëgg-bëggam moo tax ngeen def ko ne kon xam nañ président cër bi mu jox dëkk bi ak cër bi mu jox sëriñ bi kon ñu koy sant bu baax a baax di leen sant yéen ñi nga xam ne yéen itam yéen a ñëw feeñal seen yéene ndax nit ku ne lañ ko sant mën na caa def lam ca mënta ñàkk defit ngir ndigal waaye bu ca feeñalee yéene rek dees na ko xamit bu baax a baax kon nii ngeen dikkee ak yitte ji ngeen ko jox xam nañ ko bu baax a baax kon ñi ngi leen di gërëm bu baax ne di nuyu Cheikh Abdoulaye mi itam ne ni mu ko waxee nga xam ne ñaari cër yi mu fi taxawee ñaari cër yëpp la fi taxawee di ko ñaanal ci barkeb sëñ Touba suñu borom defal ko ci ndam ci barkeb sëriñ Touba ne du nuyu nag monsieur le maire Abdoulahat Ka mi kat mooy maire dëkk bi te gasandu leen ànd ak yéen liggéey bi moom it nekkal fi sëriñ bi ci dëkk bi ndax baatu sëñ bee ko fi bàyyi ne li mu def ci mbale mi itam yàlla def na ca atum sëñ siidil maxtaar mu mujj ma wala ma ko jëkk ci la woowoon sëñ Cheikh Abdou Latif ba mu ñëw ñu bokk toog moom moom mënu ko daal gaasuwaal bi bi ñu def ci mbale bi laa bëggoon ngeen xool nu ngeen koy defare lu ngeen la lépp ma joxe ko ne boobu ba nëgën nag at mu jot monsieur le maire def ko sëñ Cheikh jottali na ko cant gi kon nag loolu Cheikh Abdoulaye sëriñ bi nga ko defal sa bopp nga ko defal waaye sëriñ bi nga ko defal nag kon bagage yi itam sëriñ Cheikh Abdou Latif dafa génn léegi waaye ba noppee ngeen jébbal ko ko ndax yàlla def na moo yor commission boobu ci màggal gi bu ko defee lépp moom dana dem ci liggéey bi balaa jeexal nag dana am ñaar yu mu fàttali nee ñun itam muy sëriñ bi ndax moom amul amul lu may wax rek kàddu sëriñ bi la nee sëriñ bi kat dafa yilif ñëpp ku am sa jaaxle ñëw ci moom ku am sa yitte ñëw ci moom li jiitu ci yitte yi nag mooy ëllëg waaye loolu kenn du ñëw wax ko ah moo ko mas a wax daa waxoon ni taalibe yi day seenu ci sëñ Tuubaa li tax nattablewuma ko mooy ma toog kenn mosu fee ñëw wax ma yitte ëllëg loolu nag seen dalu xel moom murit moo ko waral ci ëllëg ak seenu gëm sëriñ bi kon li ñu koy wax lépp itam ittey àdduna lay doon kon ku fi mas a nekk sëriñ Touba ku ne yaay doon kilifa ak ñëpp waxuma la murit yi sax waaye fu nit jaaxle rek dana indi jaaxleem ci yow jaaxle gi ñu indi nag li ci war sëriñ bi mooy yéen ñi nga xam ni yéen a yilif nit ñi la ko ci war ci jot leen ko faaw mu def ko ndax bu ko deful day am lu man manque ci mission bi ndax lépp lu mu leen war a wax yéen dana leen ko wax ñoom it lu mu leen war a wax dana leen ko wax bu leen ko xisee wax nag da leen koy ñaan waaye forcé wu leen ko ne Cheikh Abdoulaye danaa wax ni nit kenn du ko jàngal lu muy yore këram kon ku ñu jiital ci am réew da ngay joxe sa xalaat waaye na muy doxale moom moo koy xam am na fi ñaari yoo xam ne nag daaw ba ren ñi fi ñëw bari na lool ci kilifa yi ci sëñ bi sëñ bi di ko booleeg ñoom loola nag duñ la ci jéggiwaat di dem ci président xam naa yegsi na ci yow waaye nag ña fa nekk tumuranke nañu lool fi mu ne mooy ci wàllu ñi daa dagg matt fii ci àll bi ci ay côté yéen nag yéen a xam la tax ngeen koy tëj ak la tax ngeen koy ubbi ndax loolu day mbirum technique waaye nag ndax koo ci déglu rek day mel ne moo nekk ci dëgg kon nag yeeyonte taxul ñu di ko wax waaye ngeen gën ko bàyyi xel lépp loo xam ne lu ci mën a am la te du yàq environnement réew mi loolu ngeen dimbali ci nit ñi ndax ñi néew doole kat. ñoo mat a gën a mat a dimbali ba ca desit ñi doon liggéey ci mbirum ndox mi loolu xam nañ la ca ne ndax am na loo ko ci leeraloon daaw ci benn mbuus bu ñu ko bàyyee fenn lam mën a yàq kon loola mënuñu caa sori waaye nag ngeen waxtaan ci seen biir ndax xay na yéen a sax waaye faw ñu fàttali leen ko ndax ay junniy nit bu ñu amee jaaxle ñëw wax la ko te yaakaar la ca boo ko jottaliwul la nga war a def defoo ko kon sa mission da dul mat kon ñaar yooyu moom faaw ñu leen koy fàttali ginnaaw bu ñu leen santee ba noppi ci jëf ji ngeen jëf nag ak jëf ya ko jiitu di ñaan yàlla ci barkeb Sëriñ Tuubaa suñu borom dimbali leen ba mission bi ngeen bëgg ci réew mi lépp yàlla kattanal leen ko ba ngeen yeggale ko kon sëñ Cheikh ne xanaa kon nga yeggale kàddu yi rek sëñ Cheikh kat nee na Mbàkke ne nañ ko jébbal liggéey bi waaye lii nga